salaam waaw comme ni mu ko waxee ñu gis tamit euh, euh, temps yu passé benn kilifa ci liggéey di Thione Seck def lu nekk ci àdduna euh, ñu doon laaj tey jii boo ñu doon wax ci Thione Seck ak qualité yi nga gis ci moom lan nga ñuy waxte tey ci coono kooku noonu di Thione Seck. waaw ah li nga ko xale comme ni ko xale yi di waxee rek papa Thione. Mhm. bett nit ñu bare bare bare bare bare bari. bett nit ñu bari sax bett bett àdduna bi sax laay wax bett waa këram macha allah mu nekk nit ku baax Thione Seck nit ku nekk nit ku jullite dafa am journaliste yu ma laa laajoon. Mhm. ndax da nga am ak avinité papa Thione. mais li tax ma naan xam naa Thione xam na ma daf may woo téléphone mu nekk ay fen loolu ma ci de. mus mm. musuma am ak Thione benn affinité. Thione mus te jël téléphone woo ma su fekkoon fekkoonte dañoo wax tey ku xam numéro Thione Seck Selbé boo xamee numéro Thione Seck dina jox ay milliards fistine duma ko ci lekk ndax xawma numéro téléphone Thione Thione Seck la muy woy Mm-hmm. sax yi ci biir suuf mm-hmm. tey dundee néew ci suuf xanaa ñoom duñu woor mm-hmm. passeport aji taxe fii nga koy liggéey wax wax joo xam ne daal maanaam lépp looy fekki foofu fii nga koy liggéey muy wax ju leer du wóor ba ma ca gën a neex nag bamba tuubaa bamba njaareem suñ bambay borom jamono ñi judd démb ak tey bamba mm. la waate nu Thione Seck euh, sama yaram baa ngi daw jël mm. na ko yàlla xare àjjana mm. ci darajey Seydina Muhammad yàlla seede na ko la muy woy moo tax bañ ko téyee billaahi wallaahi watallaahi ma dem ñaani permis dem seetu ko ndax woyam day dalay dalay yee mm-hmm. mais nekkul ne dama am ak affinité Thione Seck ma wax ko tamit wala mu doon ma woo wala mu doon ma seetloo Thione sekk musumaa seetloo mhm. musumaa woo ne ma seetal ma maa gisoon ñu téye ko rek ma xam ne kii nit kii borom kersa la mhm. ku baax la ku dëggu la mu neex ma ma dem seeti ko mais kenn wu ma demal seeti ko wala demal dimbalo te ba ma demee it dama ko ñaanal yàlla mhm. mu génn foofu ndax nitu kersa la am na ñu bëri ñoo xam ne xëy na xamuñu waaye am na la tax ma jóg xam naa ko nga ma demee laa gis deuxième fois waali foofu ñu ko sa papa seet si mu remercier ma ah ba ma déggee ne dëddu na àdduna it damaa dem ba foofa jaale waññeeku di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana yu gën a kawe ah foofu mu dem gënal ko fii mu jóge yal na rëccu li mu fi doon toogee sax ba am 60 ans waaw na ko rëccu ndax foofu mu jëm neex macha yàlla xare ko àjjana yu gën a kawe daje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax nit ki moom bu demee rek dem na nañ ko ñaanal yàlla yàlla yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe maa ngi ko koy ñaanal ndax coon sekk xalaatul kër xalaatul oto bu mu bàyyi xalaatul dara ay muumin yu nekk biir këram mhm. loolu rek la xalaat xam nga yàlla dafa def ci man dama am baatin mhm. dëkk maa ngi Waly xaw ma yaayam ca saanam xaw ma baayam ca saanam xam naa ne baayam wonkat woykat la rekk mais damay gis ci waali loo xam ne tey jii waali sax mën na maa daw hmm. ndax biisu ngóone bu ma ko njëkkee wax ne waali damaa gis jinne tey loxoom ndeyjoor bii biisu ngoone daf ma ne waaw dëgg la hmm. maamam amoon na ay jabaru jinne biisu ngóone de gestive hmm. léegi xam naa dañoo dem waxtaan ci seen biir biisu ngóone invité ma nan ma mënoo bàyyi jàmbur na maa jàpp waali man xanaa dama war a dem daw dem ci Serigne Touba gis nu may gisee Serigne Touba nu may gisee Seydina Mouhamed nu ma yegg gi sama borom ndax nañu xam ne martaba yàlla bu la bëggee defal wëñ wëñ wëñ lañ lay tegal nga di ci yéeg yàllaa ma won waali maa ko sàkku sunu borom moo ma won kan mooy waali ni ma sunu borom wonee Macky Sall war a doon président ni ma sunu borom wonee Abdou Diouf mu wàcc gis nga seen yooyu laa bëgg ñu génne ma ci man wanuma sama bopp waale yàlla moo ma won waale won ma jinne jëmu àndal ak yeneen yàlla daf ma may baatin nañu xam loolu man su ma doon sàkku pour ku may gis xam ne laa nekkal wala yàlla dama yóbbu ma yéeg aras fekk yàlla mu toog euh, kursi yu man su nekkoon maay defe sama bopp man maay doon jaamu yàlla duma jaamu kenn nag du ma sibaru kenn man Selbé jaamu yàlla laa doon taalibi Sëriñ hey xëccoo ma leen de xëccoo ma lenn man selbe Ndom taalibi Sëriñ Bàmba laa ku ma bëggul bëgguma la exemple fii lu fuy waay jaay rek bés dina ñëw mu lamb beek beeg bew beeg dara ko fi jarut ndax loo fi mënta am ci àddina bés dina ñëw nga bàyyi ko fi sama fauteuil bii ma toog de bu may dee kenn du ma suulaale ak moom fii laa koy baax asima kër gi yére bii ma sol bu dee yére téeméer la sax fii laa koy baax moo tax ma doon taalibe suñu Tuubaa daal di dal na bàyyi naan dañ may jéem a déstabiliser man kenn mënu maa déstabiliser ku am sama àjjana nag téye ko ku am sama àjjana téyel bu ma kenn may àjjana man ki ma yaakaar wóolu ko doyloo ko muy yàlla li tax ma teg ki Seydina Muhammad yàllaa ko teg yàlla ñu tànnal Seydina Muhammad ne mooy xayru xalqilaa mooy awal di aaxir di zahir di baatin yàlla tagg Seydina Muhammad ne ko lawlaa kamaa xuliqat shamsun wala qamarun wala nujumun wala lawxin wala qalamin